bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñëwaat itam ci jotaay biñ baaxoo am ak yéen ci waxtu yi ci bis bu ne ci waxtu yi ndem sob yàlla tey itam ñu ñëwoon ci yenn jagleel yoo xam ni nit ki ak ni jikko yu soppi ko duñ ni jamono moo soppiku duñ ni nit yi nit ñi ñoo soppiku ndax jamono soppikuwut nit ñi itam soppikuwuñ jikko yi ñoo soppiku jamono yi nga xamee ni jikko yu soppiku na nag ba nit ñi daanaka lépp loo bëgg ci ñoom néewaana ñu koy def te yàlla tax donte sax dañ ko waroon a def te yàlla tax néewaana muy am donte da koy lijjanti ba am ko te itam yoon bi yaa ngi koy lijjanti waaye mënoo koo am jaar nga fa nga war a jaar yëpp yëpp waaye taxul itam nga jot ci ngir am ko léegi nit ki itam <clears throat> bu fekkee day lijjanti ñu misaal rek lu mel ni ay këyit wala lu xeetoog ay këyit ba tey moo xam ci réew mi la koy lijjanti baa ci ay mbokkam baa ci ay nitam te muy loo xam ni moo ko moom te jot ko jafe ko moom day saxal aaya bii di saw fa yu xaasabu xisaaban yasiran da koy saxal di ko wax di ko wax juróom-ñaar fukki yoon ginnaaw jullik farata gu ne moo xam salaatul salaatul suhri salaatul asri salaatul maghrib salaatul isaa'i salaatul fajri bu ci ne ba'da salaam ginnaaw sëlmal ba mu daal di koy jàng juróom-ñaar fukki yoon daal di ñaan sun borom jàppandal ko mbir yooyu bu ko defee kayit yooyu mu doon lijjanti dana sotti dana sotti incha allahu taala ba tey koo xam ni itam mu ngi dugg ci mbir ginnaaw ba mu ca duggee mbir ma jafe lool ba mu yooyu ci duggum ca duggoon bu bëggee itam mbir moomu suñu borom defal ko ci ak ba dootu rëccu la mu ca doon dugg day saxal di jàng alam nasra saa yu jàppoo ba noppi bala moo julli saaru alam nasra laka sadraka wa wadaxna anka wisraka allazi zikraka fa inna mahal unsri yusran inna mahal unsri yusran fa isa faraxta fanshab wa ila rabbika farxab bu ko soxalee saa yu jullee ba noppi rek saa yu jàppoo ba noppi bala moo julli rek ndem sob na yàlla lim bu mu ko mën a def rek baax na na seet lim bu mu ko def rek bu ko def baax na bu ko defee mbir moom mu doon dugg te mujj jafe suñ borom dana ko ci defal euh, ak yombal ba mbir ya dootul jafe ba tey sóoratu li ilaafi quraysin ñu gën koo miin ci li ilaafi quraysin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayfi falyabudu rabba hada albayti alladi ataamahum min juuin wa aamanahum min xawfin koo xam ni itam dafa am mbir moo xam ni da cee ragal dara moo xam day dem am fum jëm ragal foofa mbaa muy loo xam ni lu muy dugg la teyit ragal loola na jàng li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i ba fa saar wi yam bu ko jàngee ñetti yoon saa yu àggee ci wa amanahum ji baamtu ko juróom-ñaari yoon doog a wax miin xawfin daal di koy tifli ci kanamam bu ko defee itam sun borom dana ko aar sun borom dana ko sàmm ba dana dem ñëwaat ci jàmm ak ak lu mën doon nag ba tey koo xam ni itam yaa ngi ci sa biiri bokk ndax ak mbokk des koo war a sàmm des koo war a toppatoo ak mbokk ñaari yi waruñoo feeñal seen am-am ci mbokk loolu mën naa yàqu bokk borom am-am bu mu feeñal ak am-amam borom xam-xam feeñal ab xam ci mbokk ak mbokk yi itam bokk na ci li koy defar ka gën a woyof na koy dox ki gën a woyof ci ñoom na koy dox. kon bu fekkee da ngaa bëgg yëkkatiku ci sa biir i mbokk bañ ràññee la ñépp bëgg la. da ngay saxal di jàng suratul ankabut da nga koy faral di jàng ci waxtu wu ne ak jamono ju ne saa yoo laabee rek saxel nekk ci dee ko jàng suñ borom dana la yëkkati ci sa biir yi mbokk te itam te doo doo suñ borom dana la dimbali ba doo def dara loo xam dana yàqu mbokk ndax yàqu mbokk kat ëpp nay def nit ki danga war a ànd moom ginnaaw bi leen yàlla boole ci dëgg loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man qataa rahima qataa baynaka wa bayna ko dog digganteeg mbokk suñu borom dog sa digganteeg moom ndax bi muy wàcce mbokk mbokk daf ni ko man de yaa ma yóbbu foo xam ni ragal na ñu tàqale ma suñu borom ni ko li ma koy faye mooy ku la dog ma dog ko ku la jàpp ma jàpp ko kon loolu itam mat nay bàyyi xel bu baax a baax boole ci itam koo xam ni ba tey mi ngi ci ay mbir yu muy lijjanti moo xam ci xat-xat la ne ay nit ñoo xam ni suñ borom da leen a dénk doole àdduna moo xam kilifa àdduna la moo xam kilifa diine la te itam suñ borom dogal am loo leen séq tey itam sa kàttan ci am am bariwut sa kàttan ci man-man itam bariwut dangay jàng soratu yaasin juróom ñaari bis yoo xam ni waxtu guddi boo xaajoon guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi ci nga koy jàng ñetti yoon ñaan suñu borom dimbali la ca loola ñaan suñu borom fekk si la ca loola ñaan suñu borom kàttanal la ca ba nga am ca ndam ndax ñu mel noonu kat nii rek nga mën a jëflanteeg ñoom ba tey koo xam ni itam day génn rek di dox di dem ay mbokkam itam bëgg di ko téye te bëgguñ itam muy dox di dem dañuy bind ginnaaw bu doxee ba dem tànk boobu mu dëgg ci lañuy bind baatu maaki siina buñ ci bindee baat boobu ci tànk bi tibb ko def ko ci sagar wu ñuul def ko ci ron lal bi yow mi nga xam ne yaay kilifaam yaa koy def sa ron lal bi ngay tëdd bu ko defee dem gi moom dana ko wàññi mbaa itam dana ko bàyyi bu fekkee itam nit day dem di dem rek moo xam ci mbooloo la jëm moo xam ci mbokkam la jëm bërëb bu mu doon rek te ragal yitam am fa ay noon ragal yitam ñu sonal ko fa ragal yitam ñu toroxal ko fa ndax nit ñi kat dañoo soxorante ñi ci ëpp yéenante seen moroom jàmm yéenante seenum mbokk jàmm te itam loolu moom nit nit dong nit dong la jik jikko ju bon jooju moom nit dong ñenn ci nit ñi dong ñoo ko am ndax suñu borom subhanahu wa taala lim bind lépp dañoo bëggante dañoo fonkante nit ñi itam am na ci ñu bëggante am na ñu fonkante waaye ñi ci ëpp moom soxor moom suñu borom daleen leen koo nattoo kon itam nag bu fekkee jotaay ba nga jëm yaakaar nga fa ni say noonang fa wala ñu la mën a toroxal boo jubee jotaay ba jàngal aaya bii nekk ci sóoratu nuur nekk ci sóoratu nóori nekk ci aaya 35 muy allahu nuuru samawati wal ardi masalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaahun al misbaahu fi zujaajatin az zujaaja ka annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiyatin yakaadu zaytuha yudiu walaw lam tamsashu naarun nuurun ala nuurin yahdillaahu li nuurihi man yashaau wa yadribu llaahu lam saala linnaasi wallahu bi kulli shay'in alimun aaya boobu lay jàng bu ko jàngee tifli ko ci kanamam sun borom dana ko defal mbégte ca jotaay booba te itam dana ko fa defal ay noonam buñ fa nekkee itam mën nañoo bañ a wax sax lu jëm ci moom ba tey itam xam ni suñ borom nattoo na ko muy jëflanteeg buuri àddina yi te itam ñu koy toroxal nay jàng baatub yàlla maxu bu ko jàngee juróom-ñaar fukki yoon teg ca innaka mayitun wa inna wa innaka mayitun wa innahum mayituna suma innakum yawmal qiyaamati hinda rabbikum taxtasimuna bu ko jàngee itam suñ borom dana dogal buuri àdduna yooyu nga xam ne séq naak ñoom mbir te ñu ko cee toroxal moo xam kilifa la moo xam burub àddina la suñ borom dana ko ca musal ndax ñaar ñii ma wax nii boo séqeek ñoom mbir nii rek nga mën a def ba mucc ca ndax bu dee man-man ñoo la ëpp ëppale bu dee xam-xam itam ñoo la koy ëppale kon itam nii rek nga mën a def suñ borom man la cee mbusal koo xam ni itam suñ borom nattoo na ko mu yorum njaboot rawatina muy njaboot gu jigéen goo xam ni mënu leen a téye te itam ragal na ci ñoom ñuy def naka sudul noona ndax jigéen kat mu def na ko su dul noona day yomb lool rawatina ni jikko yu soppi ko léegi ama abramu amran fa inna moon ngay bind boo ko bindee nga takk ko ci sa buntu kër yow borom kër gi boo ko fa takkee itam sun borom subhanahu wa taala dana dogal ku fa ñëw bëgg a joteeg sa doom ju jigéen sun borom mën naa def ab bantub sawkaayam mën naa bañ a taxaw sax bay jaxasoog moom te itam suñ borom mën naa def itam jigéen ji bu génnee di ko wër itam du ko gis loolu itam mat nay bàyyi xel bu baax a baax muy njariñ loo xam ni nit ñi itam buñ ci bàyyee xel te jëfe ko itam dana leen jariñ muy saadatu daare ni goo xam ni mën na leen jariñ wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bi alihi wa sahbihi wa xadimihi amin